madame la ministre may wax ni la femme est un tout la femme est un tout femme Je vous may wax ministre de la femme ou bien ministère de la femme ministre transversal boo de ni dafa le le ministre de la femme jigéen ni ñooy yaay ñoo ñu yar ñoo ñuy yor suñu sécurité jàngalu kon jigéen mooy lépp may wax ni kon madam la ministre waxoon naa la ci assemblée nationale may la jigéenu département Louga ñi ngi lay xaar bi nga ñëwee tey xam nga ni jigéenu département Louga ñoom ñëpp takk nañu ànd ak yow tertu la tertu bu rafet di wax ni nag am nga aval jigéenu département Louga ñëpp ñu ngi sa ginnaaw am nga seen aval li tax nga am seen aval mooy liggéey bu rafet boo xamante ne yaa ngi koy liggéey ci biir Sénégal te ñëpp teg ci seen bët ba pare le président de la République am sa confiance bu leer li tax nag mu am confiance yow yaa ko liggéey mënoon na la tànn indi la te li war defuloo ko mais gis naa ni partout au Sénégal li ci war lépp yaa ngi dem. di toppatoo jigéen ñi di toppatoo góor yi di toppatoo njaboot gi di toppatoo xale yi kon may wax madame la ministre département Louga yëpp ñu ngi lay sant ci loolu te confiance boobu gën nañ la ko jox may wax ni li nga bëgg muy developpement ñu gis nañ ni ministère yu bari jaar nañ fi waaye yow bu ma xoolee sa doxalin da nga privilégier le développement developpement boobu nag nga privilégier Nous, nous sommes élus locaux dans le département et le Sénégal. Nous sommes des gens, nous sommes des gens, mais nous sommes tous les gens, nous sommes tous les gens, nous sommes tous le développement que vous savez, c'est lui qui vote. Madame la ministre, nous vous encourageons. Je vous dis bonne chance et bonne continuation.